jaa ngeen jëf mbokki internetu Dakaractu am mbégte di leen dalalaat ci seen rubrique découverte euh, tey dañuy waxtaanee ci dëkk yi nga xamante ni ñoo ëpp jumaa ñu indiloon leen si nag fukk euh, ñu daal di tàmbali euh, fukkeel bi mën nañ jàpp ni Yémen la ndax Yémen dëkk boobu mi nga am cinquante mille mosquées après yemen nag Maroc moo ci topp Maroc mi nga xamante ni bëri na ay doomu Sénégal yoo xam ne nekk nañ fa mën nañ la firnde ni islam am na fa doole foofu mi nga am cinquante deux mille mosquées après Maroc boobu nag mën nañ jàpp ni Iran moo ci topp Iran mi nga am cinquante huit mille mosquées après Iran bi euh, si la Turquie di ñëw Turquie mi nga am. 82 000 mosquées euh, mosquée mosquée bleue tamit la Arabie Saoudite moo ci Arabie Saoudite euh, mi 98 000 mosquées Égypte doogay ñëw cinquième position moom mi 110 000 mosquées. Euh, bettul ñu bëri parce que xam bu ñu islam position bi Pakistan la Pakistan mi 120 am mosquées euh, ci xayma top 3 yi nak euh, ñi Bangladesh en 3 troisième position mom mi ngi am mosquées après Bangladesh nak Inde mo ci top ñu nak foré ko monter réewum Inde dafa nekk réew mo xamné islam dafa am ci lim ñi ngi mosquées ci loolu nag euh, dëkk bi ñu ne moo ëpp ay juma moo nekk Indonésie Indonésie mi ngi am lu tolloog huit cent mille mosquées mooy dëkk bi nga xamante ne nii moo ëpp jumaa ci àdduna bi euh, ku ne nag dëkk yi nga xamante moo am juma am na dëkk boo xam ne amul benn juma dëkk boobu mooy Corée du Sud Corée du Sud daal zéro juma amul dara kon mën nañ ne foofu islaam néew na fa wala sax amu fa mbokki internet yi tey loolu lañ leen indiloon ñi leen di laaj nag seen xalaat ci commentaire pour yéen Sénégal ñaata position la war a nekk